tabaarakallaahu mbokki jullit yi ñu nuyuwaat leen bu baax ziyaaraat leen yeesal nuyoo yeesal ziyaara ci sunu sëriñ tabaarakallaahu alxaaji Thierno Moule saw le xalif général des jinne le roi médecine traditionnelle du monde di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal fan bu gudd bu ànd ak wér yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla suturaal barke sëriñam sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa mi nga xam ni mooy wéeru waayam mooy léppam tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla defal sutura macha allahu taala nuy mbooleem personnel TMS TV yëpp tabaarakallaahu di wax ni ñëw nan ci seneen benn beneen xaaj bi di àggale nag tabaarakallaahu waxtaan wi nga xam ni moom la jaabir séqoon ak sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam feggoo ak sama caméraman xaaji yusufa tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm yaa na ko yàlla defal sutura borom ndar yonent bi sallallahu alayhi wax naa leen ci xaaj bee bi ko jaabir laajee lan la yàlla jëkk a bind yonent bi di ko limal di ko limal di ko limal ba li mu ko mujjee woon limal mooy dani ko wala insun wala jinnun ni ko ba yàlla di bind sama leer man sayyiduna muhammad laa insun nee yàlla bindul benn nit aadama mi nga xam ni mooy abul bashar nga xam ne mooy bàyyi ñi ñëpp bi yàlla di bind sama leer yàlla bindul maam aadama gis nga ko waaye nag wala jinnun bi yàlla di bind sama leer yàlla bindul benn jinne leeru sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam niñ ci alimenté malaaka yi pour malaaka yi mën a am noonu lañ ci alimenté jant bi pour jant bi mën a am noonu lañ ci alimenté asamaan pour asamaan mën a am noonu lañ ci alimenté suuf pour suuf mën a exister noonu lañ ci alimenté weer wi noonu lañ ci alimenté nit ñi noonu lañ ci alimenté jinne yi noonu lañ ci alimenté lépp loo xam ne nag yaa ngi koy gis lépp lu sa bët bi tege rek lu sa bët tege rek xamal ni leeru sayduna muhammad la nee naa la ba ci aljanna leeru sayduna muhammad la ak taaram nee naa la ba ci safara leeru sayyiduna Muhammad la alayhi salaatu wa salaam yàlla bindul nee naa la yàlla léppam moom yàlla léppam léppam jël na ko jox ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu des yàllaam gi yàlla yàllaam gi dong la joxul yonent bi sallallahu wa sallam waaye lu dul yàllaam gi uluhiyam googu lu dul loolu rek yàlla jël na ko jox ko sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo tax yàlla bu yàlla weesoo rek rasulullahi sallallahu alayhi moo taxaw waaw yonent bi mooy jaraafu yàlla mooy buntu yàlla moo tax mu ni ana ana baabullaahi tawassalu bi jaahi fa inna jaahi indallahi azim daan wax ni moom sayidna muhammad bu fekkee da ngeen di bëgg aajo boo xam ne yéen a ngi ko bëgg ca yàlla dee ko jaar ci sama daraja ndax sama daraja rëy na lool ca yàlla sama daraja rëy na lool ca yàlla kenn du ñaan yàlla jaare ko ci man lu dul yàlla dafa nangu sa ñaan sallallahu alayhi wa sallam waaw mi ngi noon de yonent bi wax jaabir nag ni ko xam nga waa ji ni ko fa anta baabullaahi ay yumriin ataahu min gayrika laa yadxulu ni ko yow sayduna muhammad yaay buntu yàlla bi képp koo xam ni as cem la nit la bëgg a ñëw dugg ci kër yàlla bëgg ñëw dugg ci kër yàlla te jaarul ci yow laa yadxulu du dugg de <laughs> wa man araada duxulan anhu inna lahu tardan wa sarfan ilastiblil bahimaati képp koo xam ni ñëw na bëgg a dugg ci kër yàlla wan ginnaaw sayduna muhammad ànd ak mu àndook moom ni da ngay tëb rasulullaay dugg ci kër yàlla moo xam yonent nga moo xam waliyu ya waliyu nga moo xam xutbu nga moo xam xawsu nga moo xam abdal yi la moo xam afraad la moo xam cër boo xam ni yàlla sédd na la ko cër bu la yàlla mën a sédd boo bëggee dugg kër yàlla faaw nga ànd ak sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam faaw nga jaar ci moom mënul ñàkk mooy buntu yàlla bi dañ naan yàlla bu fekkoon day am bëkk néeg sayiduna muhammad mooy bëkk néegu yàlla maanaam mooy secrétaire yàlla bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mooy secrétaire yàlla fa anta baabullaahi ay yumri in ataahu min gayrika laa yadxulu yaay buntu yàlla képp koo xam ne ñëw na bëgg a dugg kër yàlla ta ànd ak yow du dugg mu ni ko nag képp koo xam ne nag ma man araada du xuulan képp koo xam ne bëgg naa dugg néegu yàlla anhu inna lahu te àndoog sayidna muhammad nee na yow moom bëgg a dugg kër yàlla tar tardan dañ lay dóor ba pare wa sarfan wàññi la ilastiblil bahimaati jëmale ca géttu bàyyi ma yee ngir xam ne bàyyi ma rek mooy bëgg a jug dem ca kër yàlla te àndul ak sayidna muhammad alayhi salaatu wasalaam parce que mooy buntu yàlla nag yonent bi wax jaabir ni ko sallallahu alayhi wa sallam di àggale waxtaanam ak jaabir ni ko jaabir yàlla bind na ma de waaye ba muy bind sama leer nag nit amul jinne amul mu ni ko nag fa lamma araada allahu taala an yaxluqal xalq nee bi nga xamee ni nag yàlla bëgg naa bind nag mbindeef yi ew waaye ndaw sàmba yonent bi ni ko fa lamma araada allah wa taala an yaxluqal xalq bi nga xamee ni yàlla nag bëgg naa bëgg naa nag bind mbindeef yi mu ni ko jaabir mu ni ko labbayka mu ni ko xam nga nu yàlla defa xasama zaalika nuur arbaata ajza ajza waaw xasama zalika nuur arbaata ajza mu ni ko yàlla dafa xaaj sama leer googu nag ñeenti xaaj <laughs> yusufa yonent bi moo yéeme nee na ko jaabir bi yàlla bëggee bind mbindéef fii nag mu yi nga xam ne lim naa ko fi yi ma fi lim lépp nga xam ne leeru yonent bi moo leen fi jiitu bi leen yàlla bëggee bind nag yonent bi ni jaabir yàlla dafa xaaj sama leer gi nag ñeenti xaaj waaw arbaata mu ni ko fa xalaqa min al awal xilmat al arsh waaw mu ni ko nag yàlla fa xalaqa min al juz al awal al qalam mu ne xaaj bu njëkk bi bi yàlla xaajee sama leer gi nag man Seydina Muhammad ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi alxalam la ci bind muy xalima gi nga xam ne ci la yàlla di bind mbindeef yi ci la yàlla di bind dogal yi ci la yàlla di bind nit ñi ci la yàlla di bind jinne yi ci la yàlla di bind jant bi ci la yàlla di bind leer gi ci la yàlla di bind weer ci la yàlla di bind montagne yi ci la yàlla di bind lépp nee na xalima googu xaaj bu njëkk bi ci ci leeru Seydina Muhammad la ko yàlla bindee yàlla bi mu naree bind mbindeef yi nag ci la jël leeru yonent bi xaaj ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba yàlla mu ngi ca bind alxalam muy xalima gi nga xam ne ci lay bindee lépp loo xam ne bind na ko moom yàlla wa min asaani allawx nee na ñaareelu xaaj ba yàlla bind ca allawx muy aliwa ga nga xam ne fa la yàllay bind xam nga ku yor big di bind dinga am foo bind muy fëy su ma su ma la ko bëggee misaal maanaam yàlla mbindeef yéeg ñiñ ñeeg jinne yeeg rab yeeg malaaka yeeg jant beeg weer week asamaan seeg suuf seeg ajjanaak safaraak géej géek jéeri jéeg garab yeeg lépp lépp lépp lépp lépp bi ko yàllay bind yàlla mi ngi ko bind ci benn xalim ñi ngi ko bindee ci benn xalima waaye big boobu ko yàlla bindee nag mooy moom la ñu bind ci xaaj bu njëkk ci leeru sayiduna muhammad deuxième xaaj ba ci leeru sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ci la bind nag allawxu muy ali muy aliwa gi nga xam ni ci la yàlla ci la yàlla di bind nag naan bind bind naa nit nit jinne malaaka rab géej gi jéeri gi garab yi waaw di bind noonu moom yàlla yàllaa ngi bind lawxu googu muy aliwa ga ci ñaareelu xaaj ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ko wa mina wa mina saalisi al arsh ñetteelu xaaj ba yàlla ci la bind arash xam nga li yàlla wax ni su mastawa alal arsh man yàlla dama bind asamaan ak suuf ba pare yéeg ci kaw arash noonu nga ko mën a noonu nga ko mën a firee yéeg ci kaw arash ndax yàlla moo fi jiitu arash boo nee yàlla day toog maanaam fi ñuy toog yàllaa ko fi jiitu kon ba muy toog kon kon kon kon kon kon kon kon ba kon kon ba muy ba mu fi nekkee fu mu toogoon kon arash ci boppam arash gi ngay dégg leeru sayduna muhammad ko fi jiitu bi yàlla xaajee leeru yonent bi ñeenti xaaj nag xaaj bu njëkk ba ca la bind alkalam muy muy xalima ga nga xam ne ca la bindee lépp lu mu bind allawxu aliwa ga nga xam ne fa bind lépp lu mu bind ak arash la la bind ci ñetteelu xaaj ba mu ni ko nag summa xasama al juz rabi summa xasama al juz rabi arbaata ajza maanaam ñeenteelu xaaj bi nag yàlla da koo jël xaajaat ko ñeenti xaaj dégg nga ma maanaam yàlla dafa jël leeru yonent bi xaaj ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba mu bind ci alxalam muy big bi ñaareelu xaaj bi mu bind ci lawx muy fi bind mbindeef yi ñetteelu xaaj bi mu bind ci arash ñeenteelu xaaj ba nag yàlla jël ko xaajaat ko ñeenti xaaj waaw kay ba mu jëlee ñeenteelu xaaj ba nag moom yàlla daal di koy xaajaat ñeenti xaaj fa xalaxa min min al awal fa xalaxa min al awal ximlat arsh nee na ñeenteelu xaaj ba ko yàlla xaajaatee nag dafa jël benn xaaj ca ñeenti xaaj yooya bind ci ñi nga xam ne ñoo taawu arash li taawu arash maanaam pied yi fii ma toog fii ma toog tànk yi moo ko taaw maanaam bi yàlla xaajaatee leeru yonent bi ñeenti xaaj maanaam dafa jël dafa jël benn xaaj ba ca ñeenti xaaj ya bind ci li nga ñi nga xam ne ñoo taawu arash mooy ximlatan arash waaw ñaareel ba ñaareelu xaaj ba yàlla bind ca al kursi muy kursi wasi'a wu samaawaati wal ard al kursi muy chaise yàlla ba chaise ba nga xam ni mooy gàngunaayu yàlla ga mooy chaise buuram ba muy toog moom yàlla du chaise boo xam ne nag comme sunu chaise yi la de kenn du appal yàlla chaise comme sunu chaise yi naan chaise bi nii la mel yàlla toog ci chaise bi déedéet al kursi da nga naan mooy chaise nguuru yàlla parce que buur boo gis am na chaise boo xam ne ca toog kon al kursi mooy chaise nguuru yàlla gi yàllaa ngi ko bind ci ñaareelu ñeenti xaaj jamu xaaj leeru sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam wa min as saalisi baaxil malaayika nee na ñetteelu xaaj ba ba mu jëlee leeru yonent bi xaajaat ko ñeenti xaaj nee na ñetteelu xaaj ba ci la yàlla bind nag li nga xam ni moo des ci malaaka yi mboolee malaaka yépp nag <laughs> yonent bi foor na sallallahu alayhi wa sallam maanaam yàlla dafa jël leeru yonent bi dafa jël leeram bind ci yonent bi xaaj leeru yonent bi ñeenti xaaj xaaj bu njëkk ba mu bind ca alxalam ñaareelu xaaj ba mu bind ca alliwoo ñetteelu xaaj ba mu bind ci aras xaajaat benn xaaj ba ca des mu xaajaat ko ñeenti xaaj maanaam ñeenti xaaj yooyu yàlla jël ko bind ci ñi nga xam ni ñooy yenu arash bind ci kursi yi bind ci ñi nga xam ni nag ñooy malaaka yi <laughs> malaaka yi yàlla dafa xaaj leeru yonent bi xaajaat ko jël benn xaaj soog cee bind malaaka yi hmm. moo tax sànq yonent bi sallallahu alayhi wax na ko jibril de nee na ko jibril maa la mag fuuf waaw maa la fi jiitu foofu waaw nee na nag yàlla jëlaat ñeenteelu xaaj ba yàlla jëlaat ñeenteelu xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj moom yàlla xaaj bu njëkk ba bind ci nag nuuru absaaril muminin maanaam <laughs> leer gi leeral sunuy gis ñun leer gi leeral sunuy gis maanaam leeru sayduna muhammad la yëgoon ni bu dul woon ak leeru sayduna muhammad du ma xool gis la Euh, dama ni leer gi nga xam ne mooy leeral su suñuy gis nuuru absaaril muuminiin maanaam ni nga ma mën a xoolee xam ni man la Babacar ma man laa xool xam ni yow la Yuusufa ma xool xam ni lii caméra la xool xam ni lii kilim la xool xam ni lee géej la xool xam ni lii làmp la nee na leer googu maanaam leeru Seydina Muhammad moo dox ci diggante bi alayhi maanaam leeru Seydina Muhammad bu ko yàlla génne woon ci diggante bi rek dootoo ma gis dootu ma la gis hmm. allahu akbar leeru yonent bi bu ko yàlla rocci woon ci bëccëg bëccëg dootul leer leeru yonent bi bu ko yàlla rocci woon ci jant jant dootul leer bu ko rocci woon ci weer weer dootul leer laa la wax nuuru absaarul muminin maanaam sunu sunu sunu leeru bët yi sunu leeru bët yi ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo gëm ñépp yàlla nga ko bind ci leeru sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sunu leeru ngëm gi yàlla nga ko bind ci leeru sayyidina Muhammad ñi gëmul ak ñëpp seen gis yàlla ci leeru sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam la ko bind. nee na ñaareelu xaaj ba nag yàlla bind ca nuuru qulubahum yàlla bind ci maanaam leeru leeru xol xolu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla seen leer xolu ñi gëm yàlla xolu ñi gëm yàlla seen leer yàllaa ngi ko bind ci leeru sayyidina muhammad alayhi salaatu salaam ginnaaw ba mu xaajee leer nga ñeenti xaaj jël beneen xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj jël beneen xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj ñetteelu xaaj ba ca yàlla bind sunu leeri xol ñun ñi gëm sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ctt allahu akbar yonent bi foor na nee na leer googu nag yàlla bind bindee sunu sunu sunuy leeri xol leer googu mooy lan lu nu yàlla defal ci leer googu nee na ci lanu yàlla defalee nag almaarifa mooy xam gi nu xam yàlla dëggal sayiduna muhammad alayhi salaatu salaam bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku amul ca leer googu doo bëgg yonent bi ku amul ca leer googu doo doon jullit yënga ni yàlla bi mu bindee mbindee fii ba pare bi mu bindee ruux yi ruux yi arwaax yëpp bi ko yàlla bindee ba pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni yàlla may ma ma dem tànn ñi nga xam ne ñooy doon sama soppee di bokk sama xeet yuusu boo doonee ab ab boo doonee ab jullit yonent bi moo ñëw tànn la de loo yaakaar dalay neex rek nga doon jullit eh waaye ndaw sàmba déedéet neexu la rek nga doon jullit de neexu la rek nga judd ci lislaam de déedéet bi yàlla bindee arwaax yépp teg leen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moo ni yàlla may ma ma tànn ñi nga xam ne ñooy bokk ci sama xeet may ma ma tànn samay soppe yàlla ni ko bismillah demal tànn yonent bi bi mu jubee ruu yi ruu yi mil xëti naan mil xët mil xët ñi nga xam ne dañuy doon ay jullit waaw ñi nga xam ne dañuy doon ay jullit ñi nga xam ni ci lislaam la ñuy bokk ay soppe yonent bi la ñuy doon bi yonent bi jubee ruux yi ruux yooyu dañ doon mil xëti comme perlu jamaa comme jamono lañ doon def di milqati yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tànn ah yuusufa mii tànn naa ko ci sama xeet lay bokk diw tànn naa ko ci sama xeet lay bokk diw tànn naa ko ci sama xeet lay bokk diw tànn naa ko ci sama xeet lay bokk yàlla ne ko tànn nga ba pare mu ne ko waaw mu ni ko ñi lay gëmi ëllëg soppali ñëpp tànn nga leen mu ne ko waaw yàlla ni ko xab xabdatan lii ngëb la boo xam ni fil jannati aljanna la nu jëm parce que yow sayyidina Muhammad yaa leen tànn sallallahu alayhi wa sallam moo tax yont bi sallallahu alayhi ni ko leer googu nga xam ni moom la yàlla xaaj ca ñeenteelu xaaj ba mooy leer bi nga xam ni fi lanu ci lanu ci lanu bindee seen leeru ngëm gi muy gëm gi ngeen gëm yàlla xam gi ngeen xam yàlla mu ne ca ñetteelu xaaj ba nag yàlla bind ci nuuru anfusihum bind ci seen leeru jëmm yi seen leeru jëmm yi nag lu mu ci jublu at tawxiidu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa mu ni ko ci leeru sayyiduna muhammad ba tey bi ko yàlla xaajee yàlla dafa jël nag ñetteelu xaaj ba bind ci maanaam sunu leeru gëm sunu leeru gëm gëm gi mooy lan at tawxiidu laa ilaha illa allah mooy wéetal gi ngay wéetal yàlla yëgoo ni li nga mën a toog ni laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam leer googu yàlla mi ngi ko jëlee ci leeru sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam branché la ko pour nga mën a wax laa ilaha illa am na ñoo xam ne amuñu leer googu moo tax duñ ko wax mukk am na ñoo xam ni dee nanu ndeysaan waxuñu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ci ay nit ak ay jinne nag parce que leer googu yàlla defalu leen ko ci seen xol alhamdulilahi rabbil alamin ba yàlla boolee ci ñi nga xam ni dafa jël ca xaaju leer googu sànni ko ci sunuy xol ñu mën a wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di mën a wax ni benn buur rekk a fi ne boo xam ni jaamu koy njariñ ñàkk koo jaamu di lor kudul yàlla seede ni nag sayiduna muhammad alayhi salaatu salaam moom daal yonentub yàlla la loolu leer la goo xam ni yàllaa ñu ko alimenté ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam moo tax mënuñoo fay yonent bi bu nu tànnul woon yàlla du yàlla duñ ko defal de waaye yonent bi alayhi salaatu wa moo ñu tànn ni yàlla ñii laa tànn yàlla ni ko kon ñoom leer googu am nañ ci paar daal di jël pikiir bi branché def ci sa xol pikiir leeru sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam nga ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn nee na ñeenteelu xaaj ba nag neena ñeenteelu xaaj ba nag ci la yàlla bind nag ah baaxil xalq ñeenteelu xaaj ba ci la yàlla bindee nag baaxil xalq waaw ci la yàlla bindee baaxil xalq muy li nga xam ni moo des nag ci mbindeef yi yoosu ñi gëmul yàlla ci la leen yàlla bind yéeféer yi ci la leen yàlla bind ñi nga xam ni maanaam dëgg lañu woote yonent bi ci la leen yàlla bind garab yi ci la leen yàlla bind euh, nu mu tuddati géej géej jéeri ji ci la leen yàlla bind lu mu mënti doon lépp looy gis rek li ci des lépp nag yàllaa ngi leen bind ci ñeenteelu xaaj boobu nga xam ni gannaaw ba ñu xaajee leeru yonent bi ñeenti yoon jël ñeenteelu xaaj ba xaajaat ko ñeenti yoon jël ñeenteelu xaaj ba xaajaat ko ñeenti yoon te ñeenteelu xaaj ba nag te la leen yàlla bind li des ci mbindeef yépp ñoom abu jahlin ñoom abu lahab ñoom ñëpp daal yàllaa ngi leen bind foofu ca ñeenteelu xaaj boobu loolu moo doonoon waxtaan wi nga xam ni moo doxoon ci diggante sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ak sayidina jaabir tabarakallahu leeru sayidina muhammad a ngoog foofu la ñu dooree nag seen émission bii di alkarim ñi ngi ñaan yàlla na nu yàlla defal jàmm yàlla nu yàlla defal sutura yàlla na nu yàlla defal ñu bëgg sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci TMS TV ci seen émission bii de alkarim gërëm sunu sëriñ no Thierno Moule saw di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla aar ko yàlla defal ko sutura yàlla na ko yàlla wattul boppam tabaarakallaahu li muy liggéeyal yàlla ci nit ñi di ko liggéeyal yàlla ci jinne di leen tuubloo di leen dugal ci lislaam tabaarakallaahu yàlla gis na ko yàlla na ko yàlla fay yàlla dooli ko taxaw seen xarit la woon oustaz kër Dieye Alkarim jàkkaarloo ak sama caméraman de tous les temps muy Haji Youssouf tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla na ko yàlla defal kaaraange yàlla na ko yàlla wattu yàlla ko yàlla may xaalis bu bari barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di leen jox di daje incha allah beneen émission Alkarim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.